jërë ngeen jëfay ci setan bek top bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh xibaar ci gattal ki len koy jotal di sen xarit sen bokk do sosé yeneen ci sen chaîne HD 221 TV ki di euh, maire fofu ci euh, diwanu Thiès ñu gën ko xam ci euh, Babacar Diop mom Babacar Diop mom katé yëkëti kaddom rek maire ba futtu ndax neena daal ma ngay ñaawlu bu baaxa baaxa toroxal gi nga xamanteni ni ngi koy toroxal ki di Ousmane Sonko ci diwanu dakar ñay rawati na violence ba nee na ma ngi koy méttitlu bu baax a baax a baax ndax kii di Ousmane Sonko eh, niki tey jii ci suba gi eh, dañ ko eh, toroxal moom ak cortège am bu baax a baax ba tax na ma ngi koy ñaawlu di ko naqarlu bu baax a baax lam ca teg nag du leen rek lu dul Sénégal ma ngay ñàkk bu baax a baax li nga xam te ni mooy démocratie muy maanaam liberté walla sax ku ne lu neex waaye mu mën koo def ci coobareem ma ngi koy ñàkk bu baax a baax fu mu kat la Sénégal di wane lu du lenn rek eh, lu dul ñi nekk ci kaw eh, dañoo mën ci suuf eh, muy maanaam jaay doole bu métte métte metti moom gis na ni loolu lañ fay wane kii di njiital parti fds gelwaar na moom gelwaar moom nag yëkkati na kàddoom rek jëmale ko ci président Macky Sall ma nga naan ko président maa ngi lay wax rek yow ak sa régime ngeen delloo si seen xel bu baax a baax ndax lii kat daanaka rek baaxul ci ab dëkk procès bi na ngeen ko jël rek jéem mboolem ay dossier ma daal di koy teg ci suuf ndax loolu kat daanaka moo gën a yenu maanaa mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fees ñu ngi leen ñaanal jàmm di leen jox dig daje ba beneen incha allah.